14 février bi bésu coofeel baa ngi bisub cofeel bisub cant cant ren bernde cant googu fas yéene ko jëfe soxna ajaar Saliou Thioune ak soxna Bator Saliou Thioune ci bisub février ñu bokk te mbokk taalibe yi taxaw ci defar ay bernde yu am solo te ñépp guro boo ko xaroon benn bëri na lool waaye bu nekk la mu tollool rekk la méngoo bis bi daw fu ñu tollu saxoo naa la jaraw la ba mu namee feeñal la mu doon la dem ba solo jaamu Serigne Saliou xewal daje ba yee salaat na ndiram février la Bakary di suus boole kook wàcc alxuraan ak njàngom xasaayit yi fii ci madinatu salaam yaay ki ko am bis bi tax fu ñu toll saxoo naa la jaraw la billaay bis la bu ñëpp xam saayir baatin balaay way bis la bu ñëpp xam saayir baatin balaay way yaay mënante may yow ca la xew dajar naa way bésu cofeel la bésu gëneel la togg ay bernde yu am solo waaye bi la yoon fas yéene ko yoti ñi nga xamante ne ñoo di daara yi bis ba daa feeñal kuy cosaanu bëgg tey soxna ay dasaliw yàgg nañ la ko féeteel ñoo xamul woon sëriñ bee jëjun feeñal nga ni lii lépp mooma donte ñoom ñi lee miin nañ ay bernde yu soxna ay Saliou tuur na waaye bis bii ñu ko amal doon saxlu leen bett ba ñuy laajte ana lan moo xew serigne daara yi di bekk loola ci jëf ji nga xamantene ne buntub soxna ayda salu Thioune gi jëf nañu ko ci bisub 14 février ñuy santaat bu baax soxna ayda salu Thioune